bijaahi sidna wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah su ko defee weer wi teru na muy weeru barke weeru xéewal weeru sutura weeru teraanga weeru mucc weeru njëgalu bàkkaar weeru am yërmande yàlla weeru dugg aljanna yàlla nañ ko yàlla defal bijaahi sidna wa nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee alhamdulilah weer la woo ni tamit euh, dañuy am occasion aussi réfléchir bu baax euh, xalaat jàngataat gëstuwaat parce que euh, weer wi toujours ñun yi nga xamante ni ñu war sauver ci àdduna ak àllaaxira waaye tamit daf ñuy weer wi daf ñuy aussi yi nga xamante ni ñuy moo ñuy aussi waaw ah, moo ñuy gàllankoor moo ñuy gàllankoor te bokk na ci yi nga xamante ni par exemple weeru koor euh, daf ñu koy tere mooy comme ni ma ko waxee woon euh, démb ñeenti mbir la mooy yéene ak euh, bañ a lekk bañ a naan bañ a sëy gis nga ñeent yooyu noonu quatre éléments yooyu daanaka mooy mooy mooy tax nit sauvé ci àdduna waaye mooy tax nit tamit sauvé ëllëg yowmal qiyaama quatre éléments yooyu mooy tax nit sauver àdduna waaye mooy tax nit tamit sauver àllaaxira euh, yéene mooy lépp yéene mooy xol xol moom la yàlla njëkk di lijjanti ëllëg yowmal qiyaama waaw kon loolu lu am solo la mooy yéene beneen bi ci topp mooy lan bañ lekk ñu bari tey jii lekk ak naan moo leen dugal ci bàkkaar yi ñu dugg yépp yépp yépp mel ni pauvreté ñàkk Euh, bëgg lekk lu ëpp sa doole lu ëpp sa salaire lu ëpp gis nga lekk ak naan biir dafa bokk ci li gën a tax nit di alku ci àdduna ak di alku ëllëg yowmal xiyaama ñetteel bi koor gi dem na la bul sëy waaw mooy lépp luy plaisir charnel te doo xoolee bu baax tamit bokk na ci liy gën a alak nit ci kaw suuf mooy bànneex plaisir bu mu mënti doon waaw plaisir bànneex plaisir bu bu bu l'islam encadré wul tënkul ci sharia dafay bokk luy alak nit ci àdduna moo tax gis nga weeru koor dana la wax ne la yéeneel yéeneel mooy defaral sa xol loolu lan lay jàngal defaral sa xol waaw sa xol travaillé ko laabal ko fóot ko soo ko mënul tamit wuti wuril seetil ku la mën a fóotalal sa xol ku la mën a laabalal sa xol ku la mën a xaccal sa xol ba génn ci tilim tilim ya ak salte ya ak ak gàkk-gàkk euh, ya ak euh, lépp luy luy luy tax nit ki du mën a am ngërëmal yàlla kooku mooy bu njëkk bi nga lii mën nañ ko yaatal waaye yéen ñi ma déglu rek war ngeen mën a àggale xalaat yi ak waxtaan yi beneen bi ci topp ñu ne la bul lekk bul naan bul lekk bul naan bari na lu nit am ci àdduna ñàkk lekk ak ñàkk naan moo ko may waaye bari na lu nit ñàkk ci àdduna li koo xañ mooy lekk ak naan dafa am loo xamante ni sax ku ko bëgg ci àdduna ci live bi il faut que nga rendi dangay ngay rendi lekk ak naan ñun soo gisee fu mel ni ay senegal ak Afrique li gën a tax ñu gën a tardé ba mënuñoo avancer comme il faut lekk la lekk lépp lu ñu def dañ ci calculer lekk naan lekk naan. lekk naan waaw te loolu euh, daanaka ñun ñoo ci bëgg àgg fi ne ni daanaka nit ñi añ rek la ñuy def Sénégal añ rek la ñuy def donc euh, léegi ñu fekk yeneen dëkk yi ci sous région bi nga xamante ni ñoom it añ rek la def waaw waaye ñun dañoo gëm ndékki ba suur añ ba suur naan ataaya naan soow yëy gerte. Euh, euh, curi bi romb nga jënd soo toogee ba ci kanam tuuti boori tàkkusaan fataaye bu romb nga jënd akara bu romb nga jënd yaa ngi dégg euh, ñiy lakk sax di dëgg patate douce mooy pataas di ko lakk di ci def kaani nga jënd loo romb jënd yaa ngi dégg dem du du timisee nga dem jëndi fonde jëndi sandwich jëndi hamburger jëndi li jëndi du jotee nga dem ca on ba dem ca euh, forox dem dibi on passe toute notre vie à manger et à boire xoolal boisson yi publicité yi ci télé bi ci ngay gisee nit ñi ne ñun li bokk na ci li ba développer comme il le faut lekk lekk ak naan te mënuñ ko ñàkk def mais dañ ko war a organiser dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a yar dañoo war a déglu imaamu àdduna ak alaaxira muy Seydina Muhammad mu jàngal ñu ak nit nit waxuma la sax jullit mais nit nan la war a lekkee c'est important waaw moo tax gis nga am na loo xamante ni soo ko bëggee ci àdduna ci wàllu euh, xam-xam ak ci wàllu diplôme ak ci wàllu euh, yenn de yenn cër yi ak yenn richess yi ak yenn xam-xam yi billahi il faut que lek nga teg ko il faut que lek nga démystifier ko waaw c'est important Nan tamit noonu la fuñu tollu toll ñoo ngi defar ay jiw di tax jiw li jiw la jiw la ca dess di nan rek di défar di nan rek nan suba nan ngon nan suba nan ngon gis nga dafa am loo xam sax ku ko bëgg ci yalla ci walu wilaya ak xam-xam ci yalla ak cër ci yalla il faut que lek nga teg ko fële moo julli ku koy def do lek weeru koor ku koy def doo lekk dafa am jaamu yàlla yu bari il faut ngay tàggalikoo ak lekk dafa am sax gis nga sa biir am na noo koy duwee ci bëccëg bi doo mën a naafi la guddi am na nooy añee nooy nooy nooy nekkee di gërëñoote ci bëccëg bi doo mën a la guddi am na nooy reeree am na façon reer yoo xamante ni doo ko defee doo mën a la guddi waaw maa ngi fàttaliku benn bés Cheikh El Hadj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu benn nit ñëw di ko diis boppam ci wàllu bëgg di naafila guddi di jaamu yàlla guddi góor gi ne ko loolu loolu yomb na mooy da ngay reer reer bu yam reer bu yam ngay reer mu ne ko soo demee ba guddi gi commencé màgget mu ne bu la dara yeewul tamit xiif dina la yeey su la xiif yee nag fekk yow façon nga jaam façon nga saxol pour jaamu yàlla ci ngay demee guux ndox rek daal di jàpp nekk ci sa borom di ko jaamu ba fajar noonu la mu ko li rek la yi ñuy wax yépp yépp yépp yépp mais ay pexe la yoo xamante am résultat ci liggéey wut sa diggante sa borom donc euh, loolu dafa am solo gis nga am na loo ni bëgg il faut que ngay nangoo bañ a lekk sa il faut que nga koy nga koy nga koy jox retraite di congé waaw kay gis nga gis nga ñun sunu dund gi ni Ah, temps bi dafa ñàkk barke xaalis bi dafa ñàkk barke gis nga waaye gis nga du weeru koor jotee bés bi dafa yaatu pourquoi parce que ci ngay rendre compte ne ndekete yow daanaka di nga jël lu mat six heures de temps ci sa dund boo xamante ci sa dund lo boo xamante ni lekk rek ak reesal ci ngay nekk jigéen ñi tamit noonu la da ngay mujj xam ne ndekete seen dund yëpp togg la ak joxe lekk te loolu da fay freiner nit ki ci walu développement day freiner nit ki ci walu développement spirituel day freiner nit ki ci walu développement même religieux dafa am ay façon lek yo xamante ni doo ko lekkee doo mën a sax rukon rukon bu yag do meuna def ñetti subhaana rabbi yàlla voilà doo mën doo mën a lu yag ndax do do yagge ci rukon bi lu sujjóot bi da ngay waccu lol nak mom lañuy ñuy koor di jangal gis nga ni ngay jullee tisbaar euh, euh, koor daf ñuy jangal aussi noppi noppi gis nga am na ñi gën a bari wax ci àdduna coow coow wax wax wax wax du koor du du du midi passé dootoo leen dégg ñu wax li ma leen dox wax nii ñi ñi ko ki su nekk élève xam nga li ma la wax bisu koor ci ak daara alxuraan ñoo yem su tisbaar jotee rek euh, su midi jotee euh, kuuru kuuru après midi bi daanaka prof bi ci boppam day day nelaw moom élèves yi tamit classe bi la plupart dañuy nelaw duñ déglu du ñu concentré wu pourquoi parce que dañoo xiif parce que dañoo xiif prof bi day waxam day day wàññeeku gis nga euh, gars yi ci bëri euh, weeru koor doo gis ñu def gàmmu conférence la ñuy def mooy ñu tegal la photo yi nga toog ndànk naan in alhamdulillah ndànk di wax ndànk mënatoo yuuxu na nga doon yuuxoo di gàmmu di coow koor day wàññi wax day wàññi wax ci nit ki yaa ngi dégg euh, werante bu bëri bëccëgu weeru koor doo ko gis werante werante werante politique werante football werante làmb coow lii laa man fii laa far man lii man la ca des loolu doo ko gis ci ci bëccëgu weeru koor koo gis mu koy def fekk na woorul waaye ñi woor dëgg nekk ci koor dinaa fi la guddi bu baax jaamu seen borom bu baax jóg fajar bu baax dem liggéey ji ñooñu taluñoo yendu di werante ak di xuloo ak di wax gis nga woor day def ci yow noppi te nit ki feek moo ngi wax feek moo ngi ub fu mu toll di ubbi gémmiñam di tarara di dem mën na bañ a mucc ci àdduna mën na bañ a mucc ci àllaaxira du mucc fii ci àdduna ndax ku wax feeñ ku wax soo wattuwul wax jooju mooy yàq sa àdduna waaw kay léegi nag waxoon naa leen fi ne leen bàkkaar dafa évoluer bàkkaar bu njëkk xamoon nañ luy bàkkaar bàkkaar dafa évoluer léegi tamit wax ci boppam wax dafa évoluer Sur les demee ci internet YouTube di ngeen fa fekk waxtaan wi ma defoon tout ko l'évolution du péché déglu pour ko ngeen xool ko waaye tamit euh, wax dafa évoluer wax nekkatul rek li may def nii képp ku nekk ci YouTube di commenter yaa ngi wax ku nekk ci Facebook di commenter yaa ngi wax ku nekk ci Twitter di di bind yaa ngi wax ku ku kuy kuy kuy euh, mongook xam ngeen li bëgg wax WhatsApp wax la euh, taper wax la écriture wax la lecture wax la déglu wax la wax dafa évoluer ta koor nak day tax nit ñi dañuy wàññi ay wax ta wax du ko erreur wàññeeku njuumte wàññeeku soxor wàññeeku ndax bari na lu xol di liggéey ci lu baax wala ci lu bon li ci ëpp interprète bi koy génne mooy làmmiñam koor nag du la xiif gi jàppee wax ji dootul bëri c'est important te du wax wàññeekoo bàkkaar wàññeeku ndax nee nañu cër yëpp suñu yeewoo ñoom ñëpp dañuy muslu yàlla ci làmmiñ ndax ñoom ñëpp ñooy def waaye làmmiñ moom ci boppam mooy mujj jël responsabilité naan maa ko dóor maa ko saaga man duma lii man duma laa dinaa la jox lii dinaa la jox laa dinaa la def lii te moom làmmiñ gis nga du coow amee li muy def mooy làqatu ca ginnaaw euh, ay armeem mooy trent 32 dents yi làqatu ci tuñ pour dara bañ koo jot gis nga nit du tooñee bo fii la ñuy toj bopp bi arcade bi lañuy ñuy toj tuñi la ñuy toj bëñi la ñuy daaneel dégg nga nopp bi la ñuy toj dënn bi la ñuy dóor biir bi la ñuy dóor dégg nga kuu yi ci tànk yi lay dal te làmmiñ mi indi coow li yëpp làmmiñ mi doon wax naan danaa def nangam du ma def nangam dinaa def nangam moom kenn du ko laal li ci ëpp c'est très rare làmmiñ ñu ne dagg na wala gaañ nañ ko déedéet bëñ la ñuy dindi tuñ la ñuy toj bakken la ñuy toj arkaat lañuy ñuy toj kon koor day yar nit ki ci noppi noppi te ñun war nañoo jàng noppi noppi ñu bëri mënuñu ko te noppi noppi noppi lu am solo la waaw noppi lu am solo la waaw waaw Cheikh Umarul Fouti bokk na ci conseil yi mu daan joxe ku nangu noppalu ku noppi muñ ku ku noppi mucc ku noppi mucc ku noppi mucc jën sax nee nañu su su tëjoon gémmiñam kenn du ko jàpp. Euh, amason bi ah once bi du ko jàpp. Ah, tey jii phrase bu phrase ben paragraphe ben tweet ben commentaire ben wax mo leen yak seen aduna mo alak yakal yak seen aduna plus grand regret moy duñ sañoon dañuy nopi ci seconde bobu wala minute bobu wala heure bobu wala tiers bobu wala bis bobu suñ nopi won seen noppi dafa am solo wax naa ni du ñu yàlla joxe ñaari nopp jox ñu benn gémmiñ dafa bëgg ñuy ñuy déglu lu ëpp li ñuy wax waaw déglu dafa am solo gis nga faculté bi bi njëkk a développé wu ci biiru doomu aadama nit su nekkee ci biiru ndeyam faculté bi njëkk a dox bi njëkk a en marche mooy luy déglu ak sam'u mooy njëkk a en marche dañoo bëgg ngay déglu di déglu déglu dafa am solo soof nit du feet du faatoo du dee organes yi organe yi dañuy dee dañuy dee ñoom it euh, bët yi day dee làmmiñ bi day dee dootul mën a wax tànk yi euh, day dee dootul mën a déplacé wu dégg nga euh, yëg-yëgam day dee dootul yëg dara ak lan ak dootul sentir dara amatul odorat waaye dernier sens bi mujj di dox ci doomu aadama mooy luy noppi kon noppi Euh, nopp dégg mooy njëkk a développé wu ci doomu aadama ci biiru ndeyam waaye tamit du faatoo bañ ko war koo dugal ci beneen biiram muy bàmmeelam organe bii mujjee di dox mooy mooy lan mooy mooy mooy dégg luy moo tax dañ ko war a jàng weeru koor moo ngi jàngal ñu noppi rawatina nag suñu réew ma ci senegal dañuy wax di wax di wax te li ci ëpp bi laa la wax billaahi laa la wax muy ci diine muy ci àdduna muy ci politique muy ci économie muy ci lu mu mënti doon billaahi ñi ciy wax li ci ëpp xamuñ ca dara dara dara dara ñi spécialiste xam ko suñ leen déggee dañuy tiit ñoom da ngay gis kuy wax di wax di wax di wax ci biir jotaay ba kenn koy wax benn phrase rek moo xam ni xamu ca dara dara dara ndeysaan da ngay gis dañuy rus wala nga gis ku wax lu rëy ba ñëpp ne kii ñu xëy suba ñu def démenti ndekete la muy wax daara lu ci dëgg bi daara daara daara wala nga gis koo xamante ne day toog di coow di wax di wax di wax di wax ndekete li muy wax gëmu ca daara daara daara daara dara gëmu ca dara mbeleelali wax rek wax wax wax wax hmm? loolu c'est très c'est très grave c'est très très très dangereux Nous war a jàng koor daf ñuy dafa bokku ci leçon yi ci koor moy waxna lek wañi lek wañi nan waye tamit wañi wax fi may moy koor daf ñuy jàngal ñu def attention ci suñu plaisir ci suñu banex amna ñu bëri li leen alak moy choses. ta banex kat nit la mok lek ak nan loolu lañu wax les besoins primaires en hein philosophie lek nan sey yi nit daf ko bëgg naturellement léegi nak mom lay wax gars man len attention attention attention problème bi nekul bëgg ak bañ déedéet problème bi goré la gore goré la gore du problème sax de iman ndax iman benen affaire la du problème xam-xam amna ñu gëna jang ñoo gëna dëng du problème da iman am na ku ñu jàpp ni borom imaan la borom pas-pas la soo xamoon vie privée am billaahi laa la wax dootoo ko sax jox la ko kon loolu mbirum yàlla la waaye am na loo xamante ni mën nañ ko partager ñun ñëpp mooy lan gore gore gore gore bu dee amagoo nga gore xaar ba am bu dee am nga nga gore yem ci ki yàlla jox wala bu dee ay soxna nga yor nga yem ci ñi yàlla jox bu dee jigéen nga nga yem ci ki la yàlla booleel ki la yàlla booleeg yow waaye tey jii ku sañoon loo gis mu rafet wala koo gis mu rafet nga am ci moom yéene mën koo mottali waaye du noonu de àdduna da ngay gore man gore laay wax gore gore nañu gore waxuma nañ gëm de ngëm liggéey bu rëy la ngëm mbirum yàlla la waxuma nañ am xam-xam xam-xam beneen affaire la te yii yëpp dama ne am na ku ñuy jiiñ imaan moo gën a dëng am na ku ñuy jiiñ euh, xam-xam moo gën a dëng soo ko weddee laajal jigéen ñi laajal ñi nekk ci milieu yi doxkat yi demkat yi laajal renseignements généraux yi laajal euh, euh, ñi nekk ci Euh, euh, compagnie de de téléphonie yi laaj leen ñu déglu ñoom ñiy déglu di déglu lépp laajal euh, laajal vigile yi laajal chauffeur yi laajal laajal policier yi laajal les gens de sécurité les les les ñi def sécurité rapprochée laaj leen ñoom ñoo xam ñi dëng ak ñi jub kon problème bi man teguma ko foofu fi ma ko teg mooy fan nañu gore koor daf ñuy jàngal ñu gore gore mooy lan sa soxnaa ngi nii mu dagan la sa borom kër ngi nii mu dagan la yàlla ne la bëccëgu weeru koor ki yëpp bul laal bul jege man maa wax nag bul laal bul jege pour pourquoi parce que yooyu dafa bokk ci nga xamante ni day yàq koor premièrement deuxièmement dafay indi merum yàlla subhanahu wa mooy nga sëy ak sa soxna ci weeru koor wax ma la nag nga njaaloo ci weeru koor kooku moom loolu bokkul sax ci débat bi waye sa jabar ji la dagan nga fo ak mom wala nga nekk ak mom ba mujj sey ak mom loolu bakkar bu reuy la da waxtane naa ko ba pare mom ci vidéo yi donc euh, mbok yi euh ñongi ci euh, waxtaan euh, wu am solo wo xamanteni dañ ko tambali mais dañ ci dem moy safinatu ramadan moy we galu galu koor galu koor moy lan gal gi kat ñi wara a wara am diplôme bobu ñuy wax taqwa ragal yalla dañuy yéeg ci gaal gi pour dem léegi nag gaal gi soo xoolee mooy am na ñoo xamante ni duñ ne bismillah hop embarqué ñëpp dañuy yéeg ci biir gaal gi mais duñ dawalee tuuti ñetti fan am na ñuy wàcc suñ dawalee fukki fan am na ñuy cëppeelu dawalee 15 jours fukki fan ak juróom am na ñuy cëppeelu génn gaal gi suñ dawalee 20 jours am na ñuy cëppeelu. Sunda wale 25 jours, amne nyu chopelo. Sunda wale 27 jours, amne nyu chopelo. Gene galgi. Sunda 30 jours, bamu matsek, amne nyu khamenteni de nyu chopelo. Why amne nyu khamenteni? Warna ben ben fan, nyeti fan, fuki fan, euh, fuki fan ak 20 jours, 21 jours, 27 jours, 30 jours, amne nyu khamenteni nyom. Malgré la tentation, malgré bug bug chopelo, chibirgegi, mut nyu talk nyu ba desti birgalgi. ñooñu nag mooy woorkat yi dëgg ñi nga xamante ni yàlla daf leen nangul seen koor yàlla nañ ci yàlla yóbbu yàlla ci yàlla boole léegi nag moo tax ñu bëgg waxtaanee nan la ñuy yéegee ci gaalug euh, gaalug weeru koor waaye nan lañuy toogee ci biir gaalug weeru koor ak lan mooy danger wu génn ci gaalug weeru koor gi cëppeelu dal ci biir géej gi nga xamante ne requin yi ak jësit ak

galu koor yalla na ci yàlla ak jàmm incha taala dinañ def ay yenen waxtan yenen réflexion ci wéru koor ngir nit ñi gëna xam deug deug li ñu def lu mu doon benen bi ci dess incha taala dinañ am benn waxtan bu ñuy def ci euh, benn euh, étude comparative entre ñun suñu pratique religieuse ak euh, yeneen pratique religieuse yi c'est-à-dire que par exemple je vais vous donner un exemple très précis un exemple clair par exemple ñun fii ci France xaw ma yeneen dëkk yi mais France kenn du fi nodd ca kaw France kenn du fi nodd ca kaw nodd kenn du ko dégg Sénégal du julli jotee da ngay dégg ay quarante mille nodd koñ bu nekk 2 mètres yu nekk am na jàkka man ma gis fii France man par exemple avant koor gi nii géej gi ma mujj julli am nañ juróom benn ràkka juróom benn sàppe sàppe bu nekk def na 60 personnes 6 fois 6 36 la kon julli nañu gée man ak Omar ak 367 360 jullit sans appel à la prière 360 <laughs> jullit ci fajar gi fajar googu bi ñu jullee ci fajar ñu a julli 7 sàppe 7 sapé, sàppe bu 60 personnes muy 420 personnes 7 fois 6 42 420 personnes. Nous avons vu Sénégal, il y a 420 personnes ou 360 personnes. Te pourtant, fi amul n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. Sénégal, il y a un ordre. Fajar là, il y 360 personnes. Fajar, 420 personnes, Fajar, 7 sapés. C'est ce qu'on doit faire. Nous sommes dans le record pour Djang, Demdjaka, et nous sommes dans le bureau de Djaka yooyu yëpp war nañ ko waxtaane incha allahu taala euh, waxtaale euh, luy nodd nodd nit ñi xamaguñ ko ba tey nodd nit ñi xamuñu ko ndax suñ ko ni France non la jàkka yi di feesee ci Sénégal loolu na ngeen ko jot li na ngeen ni te jàkka jii may ñuy jullee koñ bu ndaw la am dañuy am ay dañuy am vingt sapé te sàppe bu ci nekk lu bon bon day def 50 personnes hmm. pour julli julli juróom la wax de waxuma aljuma de waxuma aljuma waxuma iit julli juróom la wax te li chaque jour la kon euh, yëf yaa ngo comme li ma leen ko waxoon c'est pour réfléchir pour xalaat loolu rek la boroom xam-xam yaangi jangale jàngale nit yalla yaangi defare ñun nak dañuy tok di seddo yéen xalaat ngir ñu xalaat yalla ñu yalla boole dimbali ñongi ziar ñep ñu nek ci ligne bi سيد محمد المصطفى ان سنو جربات ادجا فايا خمنا ني نيوات رين ان شاء الله حاج مامودو نديغن تي فلي تي يونيفرسيتي اسان سيك بو بو بو بو بو زيغنشور ما شاء الله يالنا يالا باركيل سنو صوبي خمنا ني مدينه نامغا مكه سخنا فاتمة الزهراء يا ياي محمد ما شاء الله ها دي دوم محمد ان ميم تام نخ فاطمه tey jii yàlla may na ko doom ji ju tudd euh, macha allah Muhammad macha allah sunu baay Abdoul Aziz ja ñoo ngi koy ziyaara moom it bu baax di ko jox wàccuwaayam xaaj daa bàyyi xaaj euh, Abdoulaye Ndiaye Owens ñoom ñëpp ak mbokk yi nekkoon ci lii bi xaaj Maxtaar mbokk taalibe yi mbokk soppe yi ci yàlla ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara leen jox seen wàccuwaay incha allah bu subaa dinañ ñëw ci waxtaan wu gën a yaatu incha allah du ñàkk ci français lañ koy def ngir ñëpp mën koo jëriñoo. ndax mbokk taalibe yi ñoom it ñoo ngi wax di bëgg a barkeelu ci ci waxtaan yi walhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah waaw xaaj Ousmane Ban maa ngi koy nuyu Pape Abdou Aziz Dia léegi la may yónnee vocal di ma wax ne daje ngeen ca ca Amérique macha allah waaw kooku moo ngo kii sunu papa la kii sunu sunu soppe la sunu mbokk la sunu xarit la sunu lépp la tabaarakallaahu gàmmu gu mag gi sax daa ngeen ko gis muy jël kàddu di def euh, discours en en anglais macha allah kon suñu ñaari soppe ñoo daje ci Amérique yal na yàlla barkeel kon mbokk yi incha allah bu subaa mu gën a baax gën a rafet alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu